Palasi saar ñaar. ba ñu ca tegee fukki at ak ñeent ànd naa ak barnabaas dellu yerusalem yóbbaale tiit dem naa fa ndax yàlla ma fa yebal ci kaw peeñu ba ma demee daje naa ak ñi ñu gën a fonk ca mbooloo ma ma wéetoo ak ñoom won xabaar bu baax bi may yégal ñi dul yawut ngir ragal sama coono démb mbaa tey neen te tiit mi ma gunge woon sax de li mu bokk ci xeetu grek taxul ñu sonal nu ci xarafal ko fekk na mbir moomu nekk coow ndax naafeq yi yoxoo ci suñu biir ak mébét mu bon ngir seet yaatu gi nu am ci Yeesu Kirist ba fexenoo defaat ay jaam waaye yaatalu nu leen benn yoon ngir dëggu xabaar bu baax bi mën a sax ci yéen waaye ñi ñu gën a fonk ak lu mu mën a doon seen sag xooluma ko ñépp a fa kanam yàlla waaye ñooñu ñu teg njiit bokk bi ma dajee ak ñoom yokkuñu dara ci sama sas gis nañu ne yàlla nu yebal muy man di Pierre ngir ñu yëgle xabaar bu baax bi ma féetewoo ñu dul yawut Pierre féetewoo yawut yi ndaxte ni yàlla jëfe ci Pierre mi ndawam ci yawut yi noonu la jëfe ci man may ndawam ci ñi dul yawut te saak Sefaas ak Yowaana nag ni ñu teg kenuy mbooloo mi bi ñu ràññee yen bi ma yàlla jagleel ci yiwam ñu fekk sinu ci ba jox nu loxo man ak barnabaas ñuy liggéey ca ñedul yawut ñoom ñuy liggéey ca yawut ya li ñu doon laaj rekk moo di ñuy fàttaliku seen aji néew doole yi fekk sax laxase woon naa ci def ko waaye bi sefaas ñëwee dëkku antiyos yedd naa ko ci kanamu ñépp ndaxte li mu def jaaduwul ndaxte laata ndaw yi saak yónni di ñëw da daan bokk di lekk ak ñi dul yawut waaye bi ñuy agsee te mu ragal kuréel boobu fay dal xaraf mu dellu gannaaw di sori ñi dul yawut yeneen yawut yi daldi ànd ak sefaas ci naafeqam ba yóbbaale sax barnabaas bi ma seetee nag ne awuñu woon ci dëgg gi xabaar bu baax bi di jàngale ma yedd safaas ci kanamu ñépp ne ko yow mi yawut ginnaaw dëddu nga aaday yawut yi ba dund ni ku dul yawut lu tax nga bëgg a sëf diine yawut ñi dul yawut nun dañoo ca sànnoo ci xeetu yawut te bokkuñu ci xeet yi xamul yàlla tey bàkkaar teewul nu xam ne yàlla du àtte kenn ni ku jub ci kaw sàmm yoon waaye ci gëm yéesu kirist kon nun itam gëm nanu kirist yéesu ngir yàlla àtte nu jub ci kaw gëm kirist te du ci sàmm yoon ndaxte du caageenuk sàmm yoon mooy tax yàlla àtte kenn ni ku waaye ba tey su fekkee ne nu ngi wuta jub ci kaw gëm kirist fekk nu ne fànn di ay bàkkaarkat ndax nag kirist moo sas bàkkaar mukk waaye su ma delloo di sàmm ndigali yoon yi ma bàyyi dëgg-dëgg dinaa wone noonu ne moykatu yoon wi laa ci lu jëm ci yoonu musaa dee naa fekk yoon wi ci boppam moo ko waral ngir ma mën a dund ba amal njariñ yàlla daajaale nañu ma ak kirist ca bant ba te noonu du man maay dundati waaye kirist mooy dund ci man dund mbindeef gi may dund nag maa ngi koy dund ci gëm doomu yàlla ji moom mi ma bëgg ba joxe bakkanam ngir man du ma nee na yiwu yàlla ndaxte su sàmm yoon doon taxaju a fa kanam yàlla kon kirist dee na ci neen